ñu ngi nuyu waa Italie gépp waaye li ma lay delloo rek tey naa la ko fii nga di ko dégg sama dernier wax li ma lay dolli rek tey Sénégal laay waxal doog ñëw ci ministre bi ak lu làmb Sénégal ak lu làmb laay waxal ñu doog ñëw ci ministre bi li ma bëgg a wax lii rek la ñi ngi juum ci loo xam ne si waruñu ko woon juum ñi ngi fàtte loo xam ni waruñu ko fàtte du lees Papa Diop man man ak Mbaye Gueye sax seen ma seen morom la waaye li tax ma lay wax ne euh, ndimbal la lu waaye Mbaye Gueye bokkul woon ci l'Égoulard mais li may wax rek ñoom ñëpp laa ko boole mais pour ma leeral la rek pour mu ànd maas ñun gi dama la bëgg wax ñii dañoo tas Sénégal xeexal Sénégal fu ne ci àdduna nag yor ay médaille d'or médaille bronze médaille argent ba dee seen carrière àdduna li gën a yàq seen carrière àdduna ci seen làmb li leen gën a néewal doole équipe nationale ci la bokk man yàgg na maa yenu saak bu rëy Adidas yenu ko Papa Diop ñu wuti aéroport ma nekk xale so daal bi tàngal meew daal di plastique tàngal meew xale je me rappelle très bien keroog bi bi bi bi bi bi Sékou Touré ñëwee Sénégal ñu ko teeroo mu départ aéroport Sénégal fii Dakar Yoff ak si biir ba sol tout blanc Abdou Diouf Abdou Diouf taxaw ci tam sut ko ca kaw Mbaye gay ngi taxaw ne Papa Diop Douba Lees Maam Gorgui Ndiaye Papa Kane ñu ku ci nekk takkaay sër ba diis ñu teeru Cheikh Touré keroog maa leen téye seen i dàll yor ko ba saagu Adidas bu vert la du ma ko fàtte mu ak Cheikh Ñaan mii ca la bokkoon keroog ci jorom bàkku Cheikh Ñaan bu yëngu leen kon loolu am na solo ñooñu seen carrière lu àdduna dañ cee def lu nekk ci àdduna booy su fekkee ne sii gouvernement Sénégal bii Matar Ba bi jiite ministre sport su fekkee ni mën nañoo fàtte ñooñu Papa Diop Papa Kane Papa Diop euh, Mbaye Guèye Boy Bambara Double Less yaa ngi dégg ñooñu bu ñu leen mënee fàtte seen feebar kenn mënut a jug ba dem ci ñoom kenn mun a déranger ba dem ci ñoom kenn jugul def dérangement làmb seeni poste ci keesu CNG bi nga xam ne xaalisu làmb la te tey ñoom am nañ ci wàlla ñoom ñu fàttali leen kenn nangu faa dem kon damay wax ni xale yi xale yi xew nii nañ bàyyi équipe nationale bu ko dematee équipe nationale. waaye bul wax li ah kañ dafa nàkk rek. équipe nationale pour réew mi la di. Ousmane bu Bargny secrétaire général bokkoon Fass paala mi xam na ko carrière am équipe nationale ko yàq wóom bu fa la demee bu du woon Moustapha Gueye kenn du ko faj fa la carrière am yam gis nga. dama lay wax benn affaire boo xam ne man du ma ragal aw ma ku may ragal waaye dama ni ku xeexal Sénégal militaire bu xeexal Sénégal dem guerre yi gaañu ak ku bokk équipe nationale gréco-romaine bëri ji Sénégal yor ay médailles yu deex bu tey boo taxaw tey woon la bi médaille jëriñu ko dara tey kenn jaarul ci ñoom ñii am nañu jabet tension nerf sciatique di boole ay ñeenti feebar kenn jógul dem ci ñoom. kenn faale wu leen lu dul dina ñamal ay cent mille ak deux cent su fekkee ni bëre équipe nationale loolu foofu la toll kon jarutu dem jarutu dem bu ñu yërëm wax ji eh, non si demal demal Égypte wala nga dem Maroc yaa ngi dégg demal Égypte wala nga dem Maroc wala nga dem Algérie ancien champion ya fa nekkoon doon bëre équipe benn tey fi ne baaraam la ñuy waxee dañuy fayee ko ba léegi am nañu situation ci seen gouvernement pourquoi Papa Diop. Boy Bambara mii tëdd tey pourquoi Double Less pourquoi ay ñoom ay ay ay ñoom ay ay ay gars ancien gloire yi nga xam ne si dañoo bëri équipe nationale ba dee man ci tout Papa Diop laa njëkk a dégg turu Roumanie à Bucarest yaa ngi dégg Jeux olympiques Montréal maa ngi koy rappelé wu booy euh, Double Less mi bëre ci ak Robert ñu match nul bi ñu su ba la ñu jox seen bourse équipe nationale ñu dabi ñoom Papa Diop Boy Bambara jàmme Diame Arona Mané mbay Cissé fàtte nañ leen ndax màggat nañu amatuñu doole. loolu koo ci interpellé Macky Sall président Macky Sall wala Matar Ba. ci interpellé parce que Matar Ba ministre la waaye dañ koy def la mu def suñ ko joxul du joxe milliards yii fi nekk ñu koy xëccoo ak di ko jiñante ku nekk di tibb di yóbbu di ci yóbbu seeni doom ñuy jàngi à l'extérieur yor ay passeport waaye ñii xeexaloon Sénégal ba màgget ni yoratuñu doore si feebar dal leen te ñoom woor na leen ni ñoom mën nañ leen a yor mën nañ leen a situationné waaye nañ leen gëstu moo ko rafet xam nga lu ñu xaar ci ñoom xam nga lu ñuy xaar ci ñoom wax la ko fii. ñu dee. yàlla na yéex déglu rek li ñuy xaar ci ñoom moo ñu dee. yaa ngi dégg bu ñu dee ñu ñëw sol seen i grand boubou basé yi ñu sol seen i ñu bëgg a wax seen palmarès boo xam ne si mat na cinquante ans te jaaruñu fa loolu la xaar nañu am yërmande ab xel muus xam ni doole day am jeexal dafay am lii Mansour Diop ko wax waxuma ko dox Papa Diop sama grand frère la duubal lay sa ngi fi booy bambara ak blouson équipe nationale dama ko yàgg xam ci moom mu def moom la doon sañsee gaa yi nañu ànd xel waay nañu ànd xel ko lii ñu def nii du yoon tëdd ci xaalis toog ci xaalis di fanaanoo xaalis di ko sàngoo barke Rasulullah di seetaan grand yi nii ñuy souffrir Mbaye ngi nii nekkatul Fass Mbao moom kër Moustapha Guèye maa koy wax tey Moustapha Guèye ngi koy def lu bëri ci poosam pourquoi ñu lañ jàppale fii la wax ji nekkee CNG bi am na ko. est-ce que CNG bi am na ko. am nañ ko am nañ ko Matar Ba fekkewul lool sax ndax la. seeni jamono waaye na xam ne rek gouvernement la te dama la dégg ñu naan go gouvernement xaw ma continuation la xaw ma. continuité continuité la waaw bu dee continuité la waaye Macky Sall ancien gloire yii mi ngi leen di seetaan gars yi feebar nañu dajaloon nañu lu mat dix personnes ngi di feebar Balla Gaye ngi nii dafa jooy ba xëy dem keroog ba mu ko ba ñu ko suulee dëjëm àddunaa fa daje luñ fa doon wut yàgg naa jooy te kenn demu fa. dëjëm kenn waru fa ñëw. non mais néew ma ne kenn waru fa war ñëw mais wala état nga wax boobu. non yàgg naa feebar te kenn dimbalu ko ku bu passé Balla Gaye de kenn musu ko dimbali kenn musu ko jëgu nañ ba loolu nañ ba loolu koo xam ne bu génnee téeméeri ni tàccu la ngay bégal ay doomu aadama soo feebaree normalement war nañoo génn nag dimbali leen mais ñoom li ñu bëgg rek mooy ñuy weer grand yi ni gejj diw feebar na tàgg ba dagg nañ ko diw feebar na def nañ ko lii def nañ ko lii ñuy doog a daw di ñëw ki ñi ay 300000 ñi ay 400000 avant loolu la ñu war génn Mansour Diop ba leen wax loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñu ngi jégalu.